ngewel mu war a jaamaarloo a ki nga xamante ne mooy anaconda démb comme ni ngeen ko gisee dem nañ fa anaconda am na lu mu wax yóbbante ko ki nga xamante ne mooy caatu ngewel tey ñu fas yéene teewaat fii caatu ngewel wax ñu lan la naral ki nga xamante ne mooy anaconda mais balaa loolu dañ koy bàyyi mu nuyoog suñu mbokku internet yi ñu suivre ak yoof gi nga xamante ne fii lañ ko fekk ma ànd seeg sama nawle yi ku bëgg a poser question rek nga poser question caat maa ngi lay di la ziar. yéen pël ngi lay fay ginnaaw bi sant yàlla di julli si yonent bi ñu ngi gërëm suñu ñaari waajur di gërëm sama yaay bu baax a baax di ñaanal sama papa fu mu nekkoon yàlla na mu gënal fi mu jógee di nuyu waa yoof di nuyu ngor wakaami yoof xam nga di nuyu almadi trao di nuyu ñëpp di nuyu waa yoof aussi di jël nuyoo waa yoof di ko teg si loxo xalifa général bi maam Doudou Laye di ñaan mu yàgg fi te ànd ak di ñaan Baye Abdoulaye Thiaw yàlla na yàlla yokk ay leeram te tas ñu si barkeem di nuyu Cheikh Mansour Diouf mi nga xamante ni moo fi nekkal Serigne Touba aussi di nuyu sama Serigne Serigne Cheikh Fall nu maam Saliou Fall di nuyu Tidiane yi fi nekk xaadir yi ñaseen yi maa ngi nuyu ñëpp di bëggee ñëpp waaw di la nuyu di nuyu caméraman yi fi teew di nuyu aussi assistance bi di nuyu sama mbokku yi aussi tamit di nuyu staff yi kiri bu baax a baax a baax di nuyu sama coach su di nuyu sama coach su baye Ngagne di nuyu staffu écurie Yoff bi ñom ñepp ma ngi leen di nuyu di nuyu mbër bu baaxa baaxa ba aussi tamit di nuyu sama mbokk yi fi ñew tamit ku ci melni garo gar di gërëm yahi bambilor di gërëm koña de sama doomu nday ak yenen sambi yooyu seen wa écurie moom may bege ñepp bu baax wa deug yàlla taxaw nañ ma ci combat bi quoi eh. ah, démb ñu seeti ki nga xamantene moy Anaconda nga wara a lo loo inshallah le 6 neena da nga dugg ci lo xamul lan ngay wax waaw Anaconda moom xelam moo toll foofu muy wax loolu noonu rek mais Caatu Ngéwél instant yi maanaam ku ma gis sax xam nit foofu ma ko waa damay làmb tabarki Seydina Muhammad na taxaw dëggal boppam rek dinañ bëre dinañ xeex ndax làmb ji damaa jaral trop te moom bu ko jaralee benn man jaral na ma fukk bu ko jaralee benn jaral na moom nee na da ngay nax say supporter boo nee taxaw xeex moom da ngay wax lu nekk di jaay ngéwél ngéwél gi nga doon moom ngay ngéwélu di nax say supporter est-ce que pare nga pour sampu jaaga xeex ak moom am jaay jox ko waaw maa ngi gis muy wax loolu ay si affaire la ay géwél ak yi na bàyyi yooyu noonu bu mu dugg si domaine boobu domaine boobu heure bu si duggee rek juum quoi moi je suis fier d'être griot mais na bàyyi boobu. Anaconda moom li may waxatee moom dafa bëriwul quoi maa ngi koy ñaan bu bés baa na ñëw dëggal boppam bu dëggalee boppam dina xam ni géwél bii du géwél buy tàllal loxo géwél buy dumawaate la. ba incha allah bu fekkee euh, Anaconda da laa bu indee xeex. barki Serigne Fallou li ma lay wax nu ma gëm la Anaconda bu xeexee man ma duma ko. bu bëree. bu ma daan moom lu bëgg rek lu bëgg. maa ko gën a pare fuuf combat bi dama see daj ay coono maa ngi gërëm aussi sama coach si Mouhamed damay teg lu métti barki Seydina Mouhamed même Rasoul maa ngi koy gërëm bu baax combat bi teg na ma si ay coono bu baax di gërëm waa Bambilor aussi waa. fan booy tëj nga gërëm. waaw da ngay dañ lay may nga gërëm. sa digganteeg Anaconda dafa mel dafa am règlement de compte bu ci am lan la yéen ñaar lan la. non Anaconda amuñu règlement mais xam nga lan mooy problème bi booy yi maanaam ku siy bëreeg man da da ngay jéem di wane wu quoi est-ce man da ngay jéem di wane wu xam nañ ne ñun bu bu bëreeg ñun rek coow da leen di topp quoi mais nag na dëggal boppam rek man loolu am suñu koy asalaamaaleykum Mbawu Ayof maa ngi nuyu sama mbokki presse bi maa ngi jaajëfal ñëpp Thiatou Nguéweul lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Modou Ba. Thiatou Nguéweul da nga tukkee sa diggante ak Boy Dakar fële sa arène nationale yàlla def na lu mel si kaw kontaan muy xale bu weex est ce que pare fay say supporter bor bi nga leen yor. non samay supporter incha allah dama leen di fay bor bi man maa Boy Dakar ah. maa Boy Dakar dama am lenn lu ma leeral dama am lenn ma mooy man ak Boy Dakar samay supporter lamb ñëpp xam nañ ne am na daan am na daan mais combat xam nga lan moo tax ma amee samay supporter damaa ñëw bëréewu ma xeexu ma bëréewu ma xeexu ma daan loolu yabaate te combat bi ñu ñëw incha allah

salaamaaleykum. Oh, Thiatou Nguéweul maa ngi lay nuyu di la ziar. démb dañoo seetloon ki nga xamante ni may Anaconda. am laaj bu ñu ko laaj mënuñu kuy jooy mënut a nax kuy jooy yéen ñaar dafa mel boo xam yéen mu ne kuy jooy mënut a nax kuy jooy. waaw damay muy waxal ki muy waxal ne kuy jooy du nax kuy jooy kooku man ak moom laa mu boolewul sama doomu ndey la te allah moo may ngémb le mu ñëw du ma ko daan ko. kooku noonu muy wax incha allah moo may ngeen bu ma ñëw duma ko daan ko bu suñu borom. mais mais am na leneen lu seetaan ngeen diggante gi nga xam ne mooy réparé fili falaab la ko def mais yow moom lu raw loolu la fas yéene seen diggante yéen ñaar. ne réparé ne caatu ngewel réparé champion mais li si réparé du si man li si man du si réparé. Ah, anaconda bu soobee suñu borom. li may wax bu wax bi bëree rek mooy loolu day yàgg Anaconda man ak moom dinañ jëflante. mais nee na la naa ko nee naa ko li may xew moom nee na comme te bés bi ñoo ko bokk moom nanguwul seddoo man bés bi nee naa ko jëlal lépp jëlal ambiance jëlal andi supporter jëlal yëngal stade bi jëlal lépp waaye bu soobee suñu borom may daan. ayca ñu maa ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Ikiri Yoff di ko commencé si mbëru mag yi di gërëm Modja di gërëm Caatu Yoff Gine ah, di gërëm euh, sama yeneen gars yi ay Jame Faye ay Juma Cof Ablaye Diop. di gërëm sama grand bébé biraay maa ngi koy gërëm bu baax a baax di bëgg waat encore une fois mbëri mbëri di bëgg ku si mel ni gaaroo gaar. di gërëm Modou Faye di gërëm Koña xam nga di bëgge ñëpp di bëgge sama gaay di bëgge mbayaari nag di bëgge waa Patis Thiali waa Thiali maa ngi leen di bëgge bu baax di bëgge aussi waa Nëngaan yi bu baax a baax waa Ndina Daagu Daan Ngaparu Mengeen juróom-ñaari quartier ndax yow fu moo am ay mbayaar fépp fu mbayaar nekk maa ngi lay bëgge bu baax a baax a baax di woo waa Ñaay si combat waa Ñaay maa ngi leen di woo ñëw taxaw di woo waa Patis di woo aussi sama mbokk yi di woo sama bàjjen bu baax sama bàjjen alimatu maa ngi koy woo di woo doomam Karim di woo Ndeye di woo Paa Ousou di woo Mari Bangoura xam nga di gërëm Baye Jili Tarkinda sama doomu nday di gërëm waa West Foire waa Nord Foire mais Baye Jili Tarkinda maa ngi gërëm bu baax jàpp na si combat bi bu baax a baax di gërëm ñëpp nag maa ngi woo ñëpp di woo sama ndiyaay Dias Mbaye di woo mu ñëw jàpp si combat bi Bambay danger di woo aussi maire Yoff maire Yoff maa ngi leen di woo bu baax di leen wax ni ñoom non dama li ma leen di wax du ma leen wax sax ñu jàpp si combat bi waaye ñoom bu dee si dëkk bi lañ dëkk xam na li xew si dëkk bi te booy dañoo bëgg dem stade te fii maire lu lay doyee mooy pour ngay jàppale ñi nga xam ne ñooy say acteur te ñun ay acteur principal lañ nan ñu jàppale jënd billet yi instant yi nii ba ne ñuy wax kenn jëndul benn billet te ñu ne Yoff am na monsieur le maire loolu di woo ministre Ablaye Diouf Sarr maa ngi koy woo bu baax di woo Thiawlaye Jabaram di woo Ndiambe Diop di woo Abdou Naar di gërëm ñëpp di gërëm sama waa koñ nag bu baax a di bëggee presse bi maa ngi leen di bëggee bu baax di bëggee sama booy Mbayaar sama tëggkat yi maa ngi leen di gërëm bu baax képp kuy Mbayaar maa ngi lay bëggee di bëggee ñëpp jaa ngeen jëf kontaan